Serigne Cheikh Bintou Fall. ak ndigalam. ak ay kàddoom. na sëñ Abdou Lahad na muy jottali ay kàddoom. di ñaanal sëñ Modou Mountakha Mbacké. di ñaanal sëriñ Modou Mountakha Mbacké. suñu borom yàggal ko fi te wéral ko lool. suñu borom yàggal ko fi te wéral ko lool. àggale ay naalam yëpp. àggale barke borom Touba. nee na ànd koog njabootug Serigne Touba gépp ak yoonu murit di ko ñaanal kilifaam Serigne Cheikh Jëmb di ko ñaanal kilifaam Serigne Cheikh Jëmb Fall li yéeneem ci liggéeyal ma Serigne Touba ci kër maamam li yéeneem ci liggéeyal Serigne biir kër maamam saa borom defal ko ci lu kawe njortam saa borom defal ko ci lu kawe njortam di ñaanal kilifaam di ñaanal kilifaam Cheikh Mortala Fall Cheikh Mortala Fall xalifab Serigne Abdoulaye Ndar ak mboolem njabootug sëriñ Abdoulaye Fall Ndar gépp mboolem njabootu kër Cheikh ak mboolem njabootu kër Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar gépp. boo tuddee kër Laat nee na boo tuddee kër Serigne Abdoulaye Fall Ndar rek. ñëpp tàbbi nañ ci biir. nee na ñëpp tàbbi nañ ci biir. di wëlbatiku. sëñ Laat nee na di wëlbatiku. di siyaare ay kilifaam. di siyaare ay kilifaam. Cheikh Mamadou Bachir. Cheikh Mamadou Bachir. moom Cheikh Abdoul Khadir. moom di ko ñaanal suñu borom jàppale ko. ko ñaanal suñu borom jàppale ko amin. àggaleel ko yéeneem. àggaleel ko yéeneem. ak i taxawaayam. ak i taxawaayam. yéene liggéeyal ak li mu yéene liggéeyal maamam. ci ci biir kër Serigne Abdoul Khadir. jëmee ko ci liggéeyal Serigne Touba. jëmee ko ci liggéeyal Serigne Touba. yàlla na ko suñ borom defal lu kawe njortam amin ci barke borom Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. dellu di nuyu kilifaam. dellu di nuyu moom Serigne Baara. moom Baara. ku baax. muy ku baax. te am yéene lool ci yoon wi. te am lool ci yoon wi. xaritam sëñ sëñ Amdi Yaasin. xaritam sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Amdi Yaasin. maam moom kenn lañu. nee na ñoom ñaar kenn lañu. léeg-léeg mu ànd fa ak moom siyaare ji. léeg-léeg mu ànd fa ak moom ñu dem siyaare ji sëriñ Moustapha. yàlla na ko suñu borom mottali yéene. sëriñ Moustapha yàlla na la suñu borom mottali sa yéene. sa kër maam. sa kër maam. la nga bëgg a liggéey lépp. la nga bëgg liggéey lépp. nga liggéeyal ko Cheikh Mamadou Fadal. sëriñ bi wax ni. sëriñ Cheikh wax ni. kilifa yi fi jaar yëpp. kilifa yi fi jaar yëpp. kenn ku nekk yëggati ay kàddoom feeñal nga sa yéene. feeñal nga sa yéene. ak sa taxawaay. ak sa taxawaay. ak sa pasteef. ak sa pasteef. ak ànd goo ànd ak moom. ak ànd goo ànd ak moom. ci bisam bii nga xam ni. ci bisam bii nga xam ni. da day lu neex ci moom. day lu neex ci moom. ndax Cheikh Ibrahima daa ndax maam Cheikh Rafal daa waxoon ni. saa yu jotee ndigal. saa yu jotee ndigal. ci Serigne Touba. ci Serigne Touba. na bànneex lay doon boo xam ne. nee na bànneex lay doon boo xam ni. ci moom. ci moom. kawe na mboolem xeeti bànneex. kawe na mboolem xeeti bànneex yi. nee na noonu lay yëgee noonu lay yëgee euh, yëgee ndigalu Serigne Touba. Serigne Cheikh wax ni. Serigne Cheikh wax ni. bisam bii tey. bisam bii boo xam ni. di bànneex boo xam ni. muy yëg-yëg boo xam ni ci moom. muy yëg-yëg boo xamante ni ci moom. lim ci nam. lim ci nam. mooy liggéeyal Serigne Touba rek. mooy liggéeyal Serigne Touba rek. sama borom boole ko. sans borom boole koog. Cheikh Mamadou Bachir mii. Cheikh Mamadou Bachir mii. mu am ci mu am ci moom yéene. muy lu ko dab. muy lu ko dab. ndigal ndigal. mu am yéene yi. mu am yéene yi. àggale ji nga xam ne àggale jàkka ji nga xam ni. fii la ñuy liggéeyale suñu borom fii la ñuy liggéeyale suñu borom. ci waxtu julli juróom yëpp. nee na nag nee nag. sant na ñëpp. sant na ñëpp. gërëm na ñëpp. gërëm na ñëpp. ndax ñi wax ñëpp. ndax ñi wax ñëpp. yóbbaale nañ ay kaddu yoo xam ne yóbbaale nañ ay kaddu yoo xam ni. yu am solo la yu am solo la. te ku ci wax ku ne. te ku ci wax ku ne. yóbbaaleel nga sa morom. yóbbaaleel nga sa morom. yéene yéene. joo xam ne ci wax wax ji matale na lépp matale na lépp. ndax waxtu wi dafa jege. ndax waxtu wi dafa jege. te xoccu te xoccu. waaye nag nee na. nag nee na. sant na bu baax. Serigne Cheikh sant bu baax. gërëm ñëpp. gërëm na ñëpp. rawatina taalibe yi rawatina taalibe yi. waaw rawatina taalibe yi. rawatina taalibe yi. ndax nee na lu ñu mën rek. ndax nee na lu ñu mën rek. taalibe yee. taalibe yee. ndax Cheikh Mamadou Lamine Baara waxoon na ko. ndax Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke waxoon na ko. lu ngeen fi gis rek. lu ngeen fi gis rek. taalibe yee taalibe yee. kon nee ñu ngi sant taalibe yi bu baax mu ngi fas yéene. mu ngi fas yéene. ànd ak ñoom. ànd ak ñoom. ci liggéey bii. ci liggéey bii. ba jébbal Cheikh Mamadou ba jébbal Cheikh Mamadou Bachir. caabi yi caabi yi. ak mboolem ay rakkam. ak mboolem ay rakkam. mboolem xarit yi. ak mboolem xarit yi. ak wëllëre yi. mu ngi sant Chérif nag mu ngi sant nag Chérif Aïdara mi nga xam ne. mi nga xam ni. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. ku ne xam na ne. ku ne xam na ni. yonent bi alayhi salaatu wasalaam. yonent bi alayhi salaatu wasalaam. mooy maamam. mooy maamam. waaye dafa gis Serigne Touba. waaye daa gis Serigne Touba. mu jaayanteeg moom. mu jaayanteeg moom. ci liggéey bi ci liggéey bi. ànd ko Serigne Cheikh Bintu. ànd ko Serigne Cheikh Bintu mii. di buntam. di buntam. ci Cheikh Ibrahima ci maam Cheikh Ibra Fall. sans borom boole leen. sans borom boole leen. waxtu wu ne. waxtu wu ne. muy koy gis ci biir kër Serigne Cheikh. ànd ak moom ci taxawaayu kër gi. mu ànd ak moom ci taxawaayu kër gi. di ko jàppale ci lu ne. mu ngi koy sant sëriñ Cheikh mu ngi koy sant. di ko gërëm di ko gërëm. ak sëñ Abdou Karim Mbakke moom sëriñ Modou Fati Xari. sëriñ baa ngi koy sant bu baax baa ngi koy sant bu baax. te di ko gërëm te di ko gërëm. xam taxawaayam xam taxawaayam. ak yéeneem ak yéeneem. boole gu leen suñu borom boole. boole leen suñu borom boole. sëriñ bi daal moom. bi daal moom. sant na ñëpp sant na ñëpp. sëriñ Bas mi nag. sëriñ Basiru mi nag. sëriñ Cheikh nee na. nee na. sant na bu baax sant na la bu baax. waaw ndax gis na. ndax gis na. taxawaay bi ci feeñal. taxawaay bi ci feeñal. ak yéene ji. ak yéene ji. ak woyof gi ak woyof gi. ndax xam na ne xat nga. ndax xam na ne ko xat nga. ak yitte yi bari na ci yow bari yitte nga. ak liñ lay liggéeyloo. ak liñ lay liggéeyloo. waaye nee waaye nee na. bëgg leen a dimbali. bëgg ñoo dimbali. moo tax boobu ba tey. moo tax boobu ba tey. nga teew fii. nga teew fii. jàppale leen. jàppale leen. boole ci ak sa yéene. boole ci ak sa yéene. te taxut benn yoon nga soññee. jotaay bi neex ci yow lool jotaay liggéey bii nag fas nañ yéene ñu fas yéene koo liggéeyal la ko yàlla nay sa njiglaay yàlla sunu njiglaay ak mboolem ko àndal nga ne nga ne ci liggéeyal Serigne Touba ba am ngërëmam ak na nga ko bëggee kon nag neen mu mu ngi lay ñaanal bu baax di la fasaaleel ci biir liggéey bii mu lay liggéeyal nga ngërëmam sa nga am sa ngërëmal maam. liggéey bi muy liggéeyal maamam. liggéey bi muy liggéeyal maamam. Cheikh Ibra Cheikh Ibra. di ko di la di la ko liggéeyal. di la ko liggéeyal. nee na ñu ngi la ciy fasal. nee na ñu ngi la ciy fasal. nga bañ am benn ndog. nga bañ a am benn ndog. bañ am benn gàllankoor. nga bañ am benn gàllankoor. sa lépp àgg ni aw yoon ni jumaa ju sotti nee na jërëjëf nee Blaat nee jërëjëf